coowal muuraay gi euh, ci euh, yenn école yi premier ministre keroog bi muy dalal euh, ndaw yi nga xam ne ñoom la ñu doon jox keroog seen ay raaya ci concours général bi ay distinction dafa yëkkati waat wax jooju nga xam ne jugoon na 2019 ak institut euh, Sainte Jeanne d'Arc mi nga xam ne moo doon tere yenn comportement yi euh, ci école boobu di école privée catholique alors euh, Adama noo jàngate kaddu yi premier ministre yëkkati ak d'abord tontu li jóge ci abbé André Latine Ndiaye bala ñoo ñëw ci maintenant yeneen proportion yi nga xam ne wax ji mu jënd ko ci. danga may may rek balaa ma lay tontu. ma apporter rek ay quelques précisions sur certaines certaines choses. constitution <coughs> bu Sénégal mi ngi doog a nekk au-dessus de toutes les lois. ok. ngi doog a nekk au-dessus de toutes les lois. mi ngi doog a par rapport au report des élections par rapport à. Ah, parce que constitution du Sénégal moom mu sa nekk au-dessus de toutes les lois. oui. donc règlement intérieur assemblée nationale sax constitution bu Sénégal moo nekk ci boppam. c'est clair. donc Ousmane Sonko waruloon wax ni lii mooy condition pour ma ñëw assemblée nationale parce que constitution moo nekk ci du ci ci bopp loi mm-hmm. su constitution nekkee ci bopp loi yëpp te ñu war ci tënku ni may défendre man les soixante jours wala quatre-vingt-dix jours. Mm-hmm. noonu laa waroon waxee ni Amadou Ba comment il s'appelle Ousmane Sonko dafa waroon dem assemblée nationale parce que moo ko demandé voilà. condition moo demandé woon Ousmane Sonko mu dem assemblée nationale daf ko jox injonction. sans préciser le délai. j'ai loolu règlement intérieur moo koy organisé. Ah, mais constitution wax constitution moo ne 60 jours. ak 90 jours. mais code électoral mooy organiser élection c'est pas la constitution. maintenant si aujourd'hui ñu tënku sur sur sur l'organisation des élections législatives ñu tënku ci constitution. mm loolu tax ma ne la dañu waroon tënk ci constitution moment bi ñuy bi ñuy renvoyer déclaration de politique générale bi mais comme on dit Sénégal quand ça m'arrange on est là quand ça m'arrange pas on n'est pas là n'est-ce pas donc sur cette affaire nous tous nous sommes d'accord que c'est la constitution qui est au mais c'est organisé par le code électoral mm-hmm. Assemblée nationale c'est organisé par le par le règlement intérieur donc su règlement intérieur bi tuddul loolu premier ministre am na droit toog parce que ñu ko ci délai. Mm-hmm. voilà. Mm-hmm. donc nañu taxaw sur les formes sur les principes pour le report dina jafe lool ñu organiser ci élection comme ni ko constitution bi waxee. Mm-hmm. dina jafe lool beneen mbir. les députés c'est un pouvoir boo xamante ni indépendant législatif am nañ droit assemblée nationale ministre bi ñëw toog ñu ne ko duñ ko def parce que pouvoir exécutif nga bokk am nañ ci droit. am nañ droit ministre bi toog ñu ne duñ def lan. duñ def déclaration débat d'orientation su ñu amuloon droit bi duñ ko def parce que ñoom ñooy légiférer les textes suñu amuloon droit bi duñ ko def. mais est-ce que posture élégance républicaine. xam nga élégance républicaine. du posture boobu l'hémicycle je ne parle pas de la masse assemblée. l'hémicycle ils n'ont pas parlé de loi en tout cas. un j'ai dit l'hémicycle est un milieu par essence éminemment politique éminemment politique donc ci biir hémicycle wax ma assemblée de ci biir hémicycle politique lañ cay def pur et dur. donc kuy def politique. waroo ragal jàkkaarloog député donc yenn yi soo koy dégg da ngay jàpp ni lii dilatoire la pour empêcher le premier ministre d'aller à l'Assemblée nationale am nañ ci droit est-ce que xam nga loolu dama ne am nañ ci droit mais niñ ci amee droit du ñu teree nit ñi duut ci baaraam parce que la question est importante la question de la de la de de de dindi dindi assemblée supprimer assemblée nationale elle est importante mais suñ ciy wax dañu war a interroger lépp parce que assemblée constitution moo ne ci 60 jours 90 jours dañu war a def élection législative oui mais daf la ne 90 jours oui mais soo waree def élection législative da nga war a parrainer 150 jours soo ko defee soo ko réduire parti politique yi attaqué la. te suñ la attaqué dañuy am dëgg conseil constitutionnel da koy valider pour l'élection présidentielle passée. c'était une exception. c'était pas une exception les conseils constitutionnels étaient dans les délais de quatre-vingt-dix jours génn ko benn yoon moo tax bëgguloon ñu dépasser le trois avril mi ngi woon ci dans ces délais. oui mais bi ñu réduire campagne bi. non la la durée de la campagne. oui c'est en commun accord la koy nit ñi di digoo. Ouais, mais si on peut être non non non non non non non de la non non non non non non j'ai dit j'ai dit j'ai dit parce que da ngay génn soo soo dépassé soo ñëwee 21 jours rek da ngay génn délai bi da ngay génn délai bi fixé par la constitution or avec les élections législatives doo génn délai bi te pour def élection da ngay ubbi liste électorale nit ñi dem inscrire y a de nouveaux inscrits qui doivent avoir lieu on a vu ici qu'on a abrégé euh, euh, le nombre de, de jours Fatou par rapport aux révisions. La durée de la révision. La durée de oui, c'est possible. Le nombre de jours, xam nga durée de révision. Nombre de jours, c'est pas fixe. Mais dañ ko war a ubbi. dañu war a ubbi permettre aux personnes qui ont atteint l'âge de voter dem d'aller s'inscrire c'est une obligation bu leen ko xañ soo ko ubbee dafay même su nekkee un mois la war nañ dem inscrire suñu inscrire ba pare am na temps pour déposer les fiches dem jëli ay fiches dem defi parrainage am na temps moo tax ma ne la dafa am ay conséquences donte yoon moo ko ko may mais dafa am ay conséquences te c'est le président de la République ne doit pas provoquer la situation exceptionnelle c'est-à-dire d'utiliser l'article 57 article 57 mm. su dissoudre Assemblée nationale est-ce que yoon may na ko mu utiliser l'article 57 parce que moo ko provoqué pour pouvoir diriger par décret parce que moo ko provoqué constitution article 57 dafa ne situation exceptionnelle loo xamante ni ay intempéries la crise la ak leneen ak leneen aujourd'hui su amee moom moo ko provoqué est-ce que yoon dina ko may moom mu provoqué la dissolution de l'Assemblée nationale pour pouvoir diriger par décret et je pense que laaj yooyu ci laaj yi mu laaj conseil constitutionnel la war a bokk ci laaj yi mu laaj la parce que fii dans ce pays là y a des y a des spécialistes dans ces question et président de la République warul juum ci démarche. il a des conseillers aussi. oui oui. am na il a des conseillers il des constitutionnalistes mais assemblée conseil constitutionnel na ci bañ a d'accord parce que nag. du yow yaay créé yaay créé crise ba pare pour diriger dañ naan yaa ko tey man mën naa jàpp ne yaa ko tey. loolu sa xalaat la yow. waaw dama ne non attends crise nag doo ko provoqué ba pare. oui mais tu il va pas penser comme nous ah. j'ai dit c'est à la lumière des pour utiliser l'article 57 il faut que tu sois dans une situation exceptionnelle. oui on est d'accord. yow tu provoques la situation exceptionnelle loo bëgg ma wax. on verra ce que le conseil. j'ai dit c'est toi qui provoque la situation exceptionnelle yow miy provoqué situation exceptionnelle bi yoon daf la may nga utiliser dirigé par décret géré par décret. oui maanaam maanaam def lu la neex xam nga tey pourquoi les supputations existent sur le sur le sur les mille milliards de Covid. c'est parce que le président dirigé par décret il géré par décret moo tax supputation yi am. oui c'était la pandémie. très bien mais fii amul situation exceptionnelle. situation exceptionnelle su amee rek président moo ko provoqué. waaw mais bul fàtte Adama. j'ai président moo ko provoqué parce que nous sommes dans une situation boo xamante ni inédite musul am Sénégal su amee Sénégal amuñu woon situation de de parrainage su nekkee amoon na Sénégal amuñoon situation de parrainage de vingt de cent vingt jours. oui mais on a vu ici au Sénégal quand même élection ñëw. ñu exempter les partis de parrainage Fatou c' arrivé c' gis nga fa gis nga man xam xam nga les textes xam nga Cheikh xam nga Cheikh je vais te dire je vais te dire je vais te dire. oui dis-moi élection locale la. oui. mais les non les indépendants dañu dem outil ji parrainage. oui c'est ça c'est loolu tax man la xam dem toog le de l' intérieur a convoqué les partis. ñu d' accord ci. su loolu amuloon. Hmm. parti yëpp ñooy dem parrainage. waaw léegi xam nga lan mën na ko les partis politiques ma jaaxal pourquoi tu penses que c'était possible hier et que c'est j'ai pas dit non non non c'était une élection locale. locale les partis politiques mënuñu def parrainage nooy nooy calculer parrainage on dit les indépendants soo waree leb am liste nationale da ngay am temps. Hmm. c'était aux te loolu dañ ko waxtaanee nag. fii lépp la ñuy waxtaanee. dama ne loolu dañ ko waxtaanee Cheikh te bañ ko waxtaanee. parti politique